cinq mu mel ni suba ak jàmm euh, daanaka mën nañ wax dimanche donc euh, diggante ki nga xamante rek moo di euh, Tapha ak ki nga xam ne moo di booy Niang 2 noo noo noo jàngatee taxawaay boobu. waaw làmb jooju moom mu taxaa làmb ji neex la quoi waaw te làmb ji suqali làmb la te làmb joo xamante nii la mu taxaa fi ko gars yi teg gëm naa ne dina nekk làmb ji war a neex quoi xeex moom dina ci am moom. mënul ñàkk waaye <laughs> moom day xeex moom. ñoom ñaar noo leen gisee ci wàllu taxawaay parce que ñu bëri dañ gis ne Tapha Tine xeexkat la mais tamit euh, euh, ki nga xam ne mooy booy ñaar 2 tamit euh, ku mën xeex la aussi tam. booy Niang ni ma la ko mën a waxee mooy jël na ay misiram waa combat wàññi na si poids bu bëri kon moo la war a xamal ne nar naa nar naa jaxase tafaatin quoi. waaw ah ah, waaw wàññi na poids bu bëree bëri ndax xam na ne contre Lac de Guiers poids bi mu indi moo ko sonal te Lac boo lay xool mook mook tafaatin soreewul même taille quoi tafaatin da ngaa sut euh, gabari daal. kon nga xam ne kon Boy Niang pare na pour dëggal boppam pour jàppante ak tafaatin pour bëree quoi. mais est ce tafaatin tamit dina ko ko may quoi. waaw loolay tey bi combat bi comme li ma la wax da si xaw a matir quoi ci côté staff ak boo dee xool Tapha bi nga daa gis muy ñëw ay signature ay Tapha bi nga daa gis muy ñëw si làmb par ak ni mu ni mu ni si combat bi nii waaw comme nga xam ne waa Bawol ñëpp jug nañ pour jàppale ko làmb ji daal mun taxaa ju neex lay doon te du nekk làmb joo xam moom amateur bu fa dem di nga di rëccu li nga dagee bi amul ah di nga fekk gis fi fecc gis ambiance di nga gis bëre barke Mohamed. pour yow si jàngat si yow si ñoom ñaar ci lan lay jeexee xeex wala ki bëre kin ciy daan dem coup bi nga jël moo lay daan moom lu leer laa la wax wallaahi les yi. nan ngay tàggatoo. waa di sant ñëpp di sant waa àdduna di sant waa géejawaay di sant ñi nga xam ne dañoo bëgg 5 tonnes di sant sama fan sa bi nekk Casamance di sant waa Bignona di sant tamit waa ñama kota waa ñama laajte mooy Père Ba borom Casamance borom parcelle Syria Awa di ko sant bu baax a baax di sant képp koo xamante ni yaa ngi jàppale 5 tonnes dof bi. di sant xaadim Fall bu Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaa sonn na si combat bi mooy xaadim Fall bu Cheikh Abdou Karim di sant si Abdou Karim bu baax sama sëriñ la sama xarit la xaadim Fall doomu nday Afe Jaw maa ngi sant Birama Diouf séeri madame Diouf papay bébé Yacine di sant sëriñ xaadim Mbacke et référence di sant waa Yoof di sant Vieteur mi nga xam ne tey ak maam Thierno ñoo seere wàllu communication bi waaw ndax boobu léegi médias yi ñu woo bari na comme si woo dama naan affaire dafa changé léegi waaw di sant ñi nga xam ne ñoo ci taxaw mooy maam Thierno ak V di sant Abdoulo di sant comme ni ma ko waxee daal sant naa ñëpp daal sant jimbaari tamit waaw di sant ñëpp yow mu ndaxaa yow moom dañ bokk dafa bari waaw di sant suñu papa sama papa ko xamante ni drapeau géej waaye sa sura mooy Abdou Aziz Ala Ndiaye waaw Abdou Aziz Abdou ni ma la ko mën a waxee mooy tey moom mu ngi jàppale jeunesse bi quoi bu ñu ñu amoon ñeent ñu mel ni moom rek Abdou Aziz Ala Ndiaye ak Birama Diouf bu ñu mel amoon ñu mel ni ñoom tey Sénégal day jëm kanam quoi ndax Aziz Ndiaye boo bëggee dégg-dégg am na ndaw yu bari yoo xam moo leen jël isaan moom la ñuy liggéeyal kon nga xam ne Aziz Ndiaye tey ñu ngi koy sant di ko gërëm daal sama papa la sama xarit daf may ñaanal di ma conseil di ma jàppale vraiment jaajëf jërëjëf mbokku téléspectateurs yi 5 tonnes santaat nañ ko beneen yoon mbokk seen sport euh, seen rubrique sport la woon lamb ak 5 euh, tonnes euh, ñu di ko santaat bu baax ci disponibilité bi nga xamante ni may nañ ko dama ni mu ko waxee noonu la presse bi ko soxla woon bari na waaye kër gi day këram di jàmm ji info kon yàlla na jàmm sax yàlla na yàlla def ko defal ko tawfeex ak réussite bu yaatoo yaatu jërëjëf 5 tonnes sant nañ la bu baax di nuyu mboolem staff bi nag ñoom vieux nga xam rek ñoo ngi taxaw sa taxawaay ñu leen nuyu itam leen bu baax baax di nuyu ci wàllu éclairage bi caméra bi Seydina présentation Mouhamadou mun Mountakha beneen jotaay ki beneen sport ba beneen yoon.